Daje bi jiite jigéen ñi am laago ci biir Senegal, tey nag ñu daje fi pur def général maanaam manam yeesalaat suñu kureel, euh, te nag ma anonsé ci ne wax dëg Yàlla damay retiire wu, damay noppaleku ji, bu ma ci defee lu ëpp ñaar fukki at euh, te jàpp ne formé nañ ci ñoo xam ne mën nañu yor mbir mi ëllëg, euh, renforcé nañ ci xale yi ba ñu am aussi un engagement, donc loolu moo tax tey bés bi am solo torop si man donc. li may wax rek mooy li ñu fi li comité bi liggéey bari na depuis mu juddu liggéey nañu ak ministère yu bëri ñu am fi nag un important projet muy le projet VLF nga xam ne moom moo ñu leeralal yoon bi parce que bi mu ñëwee la ñu jàppale ñu am ay instruments de bonne gouvernance di def ay capitalisation li ñuy def di mën a jàppale xale yu ndaw yi ba ñu xam ne waajal leen ba bu ëllëgee ñu mën a yor li nga xam ne moom lañuy ñuy joxe tey ak yeneen activité yu baree bari nag def nañ ko di yeete di liggéey ci droit yi euh, loolu ñoom bi ñuy jàppalee ba ñu am sax këyit nekk euh, association euh, dafa ubbi bunt bi ba partenaire yëpp dañoo ñëw ku mel ni Oxfam ñëw na ñu jàppale ci yu bari ku mel ni IBP ñëw na ñu jàppale ci wér gu yaramu jigéen ñi handicapé yi donc euh, di Oxfam aussi jàppale ñu ci lu demee ni autonomisation des femmes handicapées AGP nous liggéey sur les questions d'accès à la santé de la reproduction des femmes handicapées ku mel ni ceci aussi jàppale ñu ci PCV donc partenaires yu bari ñëw ak ñeneen ñu nous vraiment Les organisations de femmes nous liguons Nous ñu ngi pour tout pour pour sa paix la radio aussi nous ngi parce que dañuy liggéey sur les questions de droits humains donc vraiment ñuy gërëm partenaires parce que nous

préoccupation yi nga xam dañ ko laal rek lu demee ni ay de violence basée sur le genre euh, liggéey nañ ci ba def plan d'action euh, li xaar équipe bu bees bi moy ñu fexe bu plan d'action pour ñu mettre ko en leneen li aussi moy ñu gëna ba les régions les départements ñu am taxawaay bi nga xam ne la niveau national bi ñu fexe ba ñu am ay partenaires ñu organiser leen insister vraiment sur le développement organisationnel au niveau local au niveau de la région pour que association bi mën a am des antennes solides. nguur gu bees bi par rapport waaw nguur gu bees bi euh, xaar lu bari donc may lancer solennellement vraiment un appel au président euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak son premier ministre monsieur Ousmane Sonko ak équipe bi ñu àndal yëpp ñu leen wax ne ñun dañu am une loi d'orientation sociale état du Sénégal la ñu àndal tëgg ko ñu adopté nous avons 11 décrets d'application. Mais nous avons 3 signés. signé. 3 lignes qui sont appliquées, mais l'application est aussi vraiment dessus. Donc, ce que nous avons dit, technicien, vraiment le circuit, nous avons signé décrets d'application. Si nous avons signé, nous avons fait l'application des décrets, nous avons une réalité. Nous avons une loi, nous avons une solution xam loi am na solo signer décret d'application am na solo mais li ëpp solo mooy doxal décret yooyu ba ñi nga xam ne ci ñoom la jëm mu mën leen jëriñ ñu mën cee gis seen bopp. ñoo jàppale euh, le comité des femmes de la fédération d'abord di si jiital euh, la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées parce que euh, fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées moo meññ le comité des femmes de la euh, fédération des personnes handicapées comme nous le turam di wane euh, di d'ici, tamit euh, fédeli d'ici comme Oxfam comme IBP comme wa CECI comme wa ONU Femmes ONG Site Savers ak yenen yenen partenaire tay yo xamante fi xeyna qui len euh di profiter aussi pour gërëm di partenaires parce que nous xam nañ l'État état du Sénégal mu def lépp état du am avec ay waaye tamit partenaire technique ak financier tamit pour euh, les associations et les groupes cibles euh, ngir mën leen a euh, di wax tamit vraiment liñ ci en tant que acteur étatique quand même l'œuvre colossale et monumentale du comité des femmes de la FESAF e nga si lim tamit ay instruments yu am solo yoo xamante ne ñoom liggéey nañ ko mu di benn plan stratégique boo xamante ne tëgg nañ ko euh, def nañu tamit liggéey bu rëy jëmale ko ci formation au leadership am na tamit yeneen xeetu composante comme communication ak euh, euh, plaidoyer yoo xam ne def nañ ko lu jëm ci ax ak yelleefu way laago yi wala ax ak yelleefu jigéen yi nga xamante ne am nañu laago tamit li may daanele aussi si wàllu autonomisation parce que xam ngeen ne association tamit